Oh, Assalamu alaikum Nous sommes à Tiawan Sénégal en tant que maire de la ville de Tiawan geste bu rafet bi nga Ndiaye après les élections municipales mu joxoon ñu ñaari ambulance ñaari corbillard ak ñaari camion mbalit bi ñu demee nag waxtaan on s'est rendu compte que ni hôpital bi amul woon ambulance ñu ne kat poste de santé bi bu ma Samba Sall la ñu affecté benn ambulance kon nag ñu jàpp ni ambulance bi Ablaye Ndiaye Ngalgu moo ko may Tivaouane moo ko may commune Tivaouane commune Tivaouane jël ko mhm. teg ko ci loxo centre de santé bu Massamba sal mu gudd mu gàtt waxtan bi ci li rek la remise de clé la ambulance baangi ni nii ngeen jàpp ne waa am ngeen ambulance bu baa bu bees te Ablaye Ndiaye gu mo len ko may ñing koy gëreum diko sante ci geste bu mu def ndax geste bi moy wonni ni bëgg na Tivaouane xam problème mu Tivaouane te mi ngi ci dox te lu mu ci am mi ngi ko ci def kon ñun dañ koy sant ci loolu mu def ci geste bu rafet boobu nga xam ne lii day day dem directement pour les populations de la ville ndax ambulance xamul ku far ak ku farut ñëpp la yemale ku feebar la xam feebar nag ñëpp lay dal kon nag bu xasee bu ñu xasee ba jox la ambulance bu ni mel kon da ngay sant yàlla xam ni kat jox nañ la loo xam ne bu ëllëgee dana mën a servir l' ensemble des Tivaouanois yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi koy gërëm di ko sant si loolu jërëjëf monsieur docteur. directeur de l'hôpital ot sa caabee ngoog merci maamul amul mën nga tàllal caabi nga yëgiti caabi joxaat naa ko de day bañ gaay jam ko quoi donc ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di ci jiital monsieur le maire di rafetlu bu baax geste bi nga xamni def nañ ko mu jëm ci centre de santé Massamba Sall nga xamni moy centre de référence pratiquement 34 structures de santé mu a plus de 10 communes donc moy un centre de référence donc muy geste que xamni ñun dañ koy apprécier à sa juste valeur parce que fay ñew renforcer li nga xamni ni na fi ndax sollicitation yi bari na dinañ évacuer ambulance bi fi nek mëna di évacuer mais bari na ay sollicitation yu ñu jot ci ay particuliers ci ville bi ñu am seen malade yu am rendez-vous ci yenn dëkk yi yenn eh, Dakar Thiès ñu bu len bari na tamit ay malade manto yo xamni ñun ñoo leen war di référer caaro yi donc ambulance bi fi ñuy li limu ñuy eh, yokal lu bari la di ci sante encore une fois commune de Tiwaone à travers son maire di si sant aussi Abdoulaye Diagne Ngalgou nga xam ni moo ko jël teg ko ci loxo maire pour ñu jox ñu ko jërëjëf

rafetal nekkin bi ànd doon benn alalam du ko fekkee ñaanam du ko fekkee taxawaayam du ko fekke dooleem du ko fekkee kàttanam du ko fekkee xelam mu rafet du ko fekkee waaye loolu nga xam mi koy digle de xam nañ ni bu fekkee am na ñuy jiitu Tiwaawan gi lañ doonte jàpp na kër yi yëpp waaye jote gi dafa yàgg te di bokk kese te Cheikh Moussa Bachir mi ngi borom penc na baat bu rëy. keroog bi ñuy ñaanal maam Abdou Aziz si mu ñëw teewal booy juram yi sëñ Cheikh Saliou jam sëñ Tuubaa daf ne jotee day jiitu joote kon jote gi am na lu yàgg a yàgg te mi ngi rafet kon su fekkente ni ñi nga xam ne ñooy yaakaari dëkk bi sukk nañ ci diine ak bokk rafetal ba tànn pénc mii dab nañu bànneexu Cheikh Moustapha Bachir mii gën doon pénc dab nañu bànneexu sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam mooy sëñ Tuubaa te yilif kër gi yilif njaboot kër gi nga ci jiitu sëñ Moussa Nalla kon loolu moo tax ñun ñëpp ñu génn dalal leen sargal leen sant leen ci turu soxna si nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi nekk bi nekkal leen fii nekkal ñu fii kon loolu yal na ko yàlla saxal yàlla ñu yàlla musal ci lépp lu yàq mu le maire ak ñi nga àndal li tax ngeen def ko yalla yenen teranga ngeen jek ko ba indi ko fi indi ko ci tuawal ndax tuawal benn bop la tay yow yalla yalla dogal lu fi way def ak lu fi way di wax ak lu fi jëf so sañoon tuawal lay ëppee ci rew mi kon ñong lay ñaanal ya nga xamni sak la nga and ak mom te mu and ak yow jëf ji muy président Ngalgu ak monsieur le maire di jansi ak soxna bu gay ak ñi nga xamante ni na soxna Abdou Ndéné sëriñ Abdou Ndéné <laughs> waaw monsieur le ministre ñoom ñëpp euh, bëgguñoo la lim sax ndax bu ñu limee maire ñëpp ñëw na waaye dafa fekk ni wane na ni li ngay jëf yaa ngi ko ànd ak ñi nga war a àndal ndax tey ñooy sa bokk jigéen ñaale yi nga xamante ni ñoom ngay àndal ngir defar dëkk bi ñoom ñëpp ñu jàpp ci xam ne ñoo bokk réew mi ñoo bokk lislaam lu baax la kenn ku nekk bëgg kon bu jiite ko nekk yaa ko war a jiite te loolu def la ko ñu fi la jàppale jàppale mboolem ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. fi teew yëpp di ko teg ci loxo imaam te bu ñu nuyoo kilifa diine nuyu nañu képp ko aju ci diine ñu nuyu monsieur le maire de la ville de Tivaouane ñu nuyu képp ku nekk ci administration bi. Pape Musa Diop laa tudd kàddu gi moom moo du sama Njay ngal goko mom ko Njay ngal go nak nag Njay ngal Ngalgoo ñepp la waye kàddoom mom Pape Musa ko yow wona ma ci yoon bi yor bënte ma ay kado cant ne ma bul baye ba nit ñi tas nga wax ko bëgg na nga santal ma Demba Diop si sédel ko nit ñu bax ñang fa fekk ndax nit am na lu baax wala mu yéene lu baax mu tabbi ci ay loxo te àggalewul yéene boobu monsieur le maire sa frère Ablaye Ndiaye Ngalgou nee na mi ngi seedeel communauté mouride bi nekk Tivaouane yépp ak toute la population de Tivaouane ni sagal nga ko ndax li ko sagalee mooy bi muy jënd matériel yi yéene bu mu am ci Tiwaawan la waaye bi la yàlla joxee ndam li mu yëkkati lépp te ko ci sa loxo ba pare wax ci benn condition ne man de dama doon sàkku rek waaye du lu ñu exiger ndax exigence mooy li ni la def ko force waaye li ñuy sàkku mooy li ñuy ñaan ñu ñaan ko monsieur le maire mii Ablaye ca bis mu ne ko monsieur le maire man de dama amoon ñaari yéene ci ñaari corbillard yi ndax dama gis waa kër maam borom Touba bu ñu amee ko wàññeeku bu ñu yóbbu ko Touba dafay indi ay jafe-jafe ma ñaan benn corbillard bi duñ ko mënoon a teg seen loxo mu ni beneen bi dama lay ñaan ñu tegal ma ko ci loxo waa kër Cheikh Seydi Hadj Malick kon tey bu ñu ab Ablaye li mu ñaanoon ci yow nga dëggalal ko ko nee na mënul lu dul di la wax jërëjëf yàlla na la yàlla fay. benen bi moy ñi ngi and ak mam gudo taxami di madame la maire muy chef de délégation li tax ma ni muy chef de délégation bi sur le plan administratif mo fi tak ndongo tànk tank bo xamni bu Ablaye Ndiaye ngal bu ñëwoon fi lay tok ñewul ku mu ku la yónni nag daraje ku ñu yoni daraaje ko la yónni rek da yor motax mom mu tok fi sa suñu yaay asukan sàll mi ngi nii ak wa mouvement and defar ndax Ablaye Ndiaye ngalgu

Ablaye nee na merci beaucoup bon bi nag dane ma bu ma teg ko ci sa loxo ndax kër Cheikh Awa Balla yéen a ko bokk waaye moom am na fi jël dañu dem bërki dem ba Kawsara di def proximité jàkka ji nekk ci watu betuwaar bi ñaanu ko ndimbal ci liggéeyu jàkka ja ndax seen loxo lott na ci mu jëloon boobu cinq tonnes ciment ni ma boo demee teg ko ci loxo Demba Diop si mu teg ko ci loxo waa Kawsara ki koy jël mi ngi fii monsieur le maire bon baa noonu sa boola sa frère moo ko jox nga tegal ko ci loxo waa Kawsara asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu kilifa yi fi toog yëpp di nuyu famille murid bi yëpp sans exception di nuyu sëriñ damay wax toujours le mm-hmm. ragal féete day xañ nit wërsëg wallaahi mais lu ma nuyoo nuyoo naa nuyu soxna Faty. maa la ko wax nuyoo bopp man. nit ku nekk ak ki la yàlla boole sama xarit la yàlla moo ko def du ci man du ci moom kon damay sant yàlla bi ñuy def manifestation bi fii ci kër teewul nag sëriñ yi fi nekk yëpp ñi sant Mbàkke ñëpp aju ci kër gi Mbàkke rek. ku aju si sëñ Touba rek sëriñ laa la def ndax man taalibe laa def sama ñun nag boo defee sa bopp taalibe doo xool a ah, wala be da nekk taalibe taalibe taalibe man taalibe rek la loolu la ma yàlla defal maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax li muy wax nag tey lii ñu fi dajale hmm. dara gënu ko rafet ci àddina hmm. mooy ñi nga xam ne nit ñi fàtte nañ leen nga fàtte ku nga fàttaliku leen ndax dañuy wax naa nit bu génnee àdduna rek dañaan génn na àdduna ki génn àdduna nag ça veut bu ñu defee semaine sax nit ñi fàtte ne génn na yàlla moo koy def yi yàlla moo bindee nit noonu doomu aadama noonu mais nag ñu fàttaliku ne ñoom it dañu am loo xam ne ay bëgg-bëgg la kii mottali oto bi corbillard bi pour mottali bëgg-bëggu nit koo xamee ni bëggoon na bu génnee àdduna ñu yóbbu ko Touba te fekk amul moyen yàlla def ñu joxe oto bi pour bu ñëwee la mu waroon frère pour dem yàlla dimbali ñu frère ko ko loolu la Ablaye Ndiaye ñu dawul def tey ça veut dire tuyaaba bi nga xam ne moom lañ ci war a def tuyaaba boobu yàlla moom la koy bindal lii dafa nekk loo xamee ni da ngay yàlla te kenn du ci mun duus bu la neexee dina la fay bu la naqaree dina la fay kon nag ngeen jàpp ni li Ablaye Ndiaye def daf ko defal ay nit yoo xamee ni que ñu néew doole lañu amuñu moyen mu fàttaliku leen ne bés bu bés bu ñu demee ba nga xam ne soxla nañu loo xam ne seen yéene la woon te mënuñu ko mottali man Ablaye Ndiaye maa ngal gu man ma mottali leen seen yéene loolu la def nii. kon dañ koy sant bu baax a baax ndax kenn ku ne bëgg nga li nga xam ni moom nga yéene bi ngay dund ñu mottali ko sa ginnaaw mhm. ndax buñ la ko sa ginnaaw fa nga nekk doo taal dëgg la yàlla defal ko jàmm amiin na yàlla defal ko sutura yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla defal fanu gudd ak wér yal yàlla def mu nekk lii muy wut ak la ka tardé yalla yalla def barke ci la tax mu tok diko ko amin ya yalla yàlla na ko yàlla defal barke. nit ku bax bu defé lu bax dañ koy sante parce que lu bax la def man loolu la gëm. kon nak jappalé ni Ablaye ndaye gal sen dom la sen xarit la sen andando la sen bëgg-bëgg la jappalé ko comme ni ngeen ko wara jappé war sey jàppale. nit ku nekk da ngay fexé ba ëllëg li nga bëgg ci sa njabot bo doxé ñaari tank gis ko. communauté Mouride Ablaye Ndiaye Ngalgu li mu def li mu ci mën a dolli mooy lenn rek ñun administration lañ yor boo leen jëlee chauffeur maire bi fay. loolu daal laa mën a mottali ci li mu def ci oto ndax nag bu defee dara war na kenn ku nekk war na dugal sa participation ñun suñu participation ci côté boobu lañ koy def vraiment ñu ngi koy sant di santaat ñëpp di sant communauté Mouride bi yëpp. del wax ne seen doom la jàppaleen nit ki bu la defalee boo doom ju baax da ngay fexe ba lu mu ne nga ne lu mu soxla nga nekk talu la loolu mooy àddina waaw yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal sutura en tout seen oto ngi nii kii mooy këyit oto yi caabi wata gaa ngi nii dafa génn ah. imaam imaam jubal dafa génn. teel teel. Serigne Cheikh. jubal jubal Serigne Cheikh jubal. jubal jubal Serigne Cheikh. man naa ci teg deux tonnes ciment. muy set. teg leen muy set. kon nag muy affaire baa ngi noonu. set bi dugal na loxo. maa ngi leen di gërëm di leen sant. di leen sant di ay ambulance ak ay corbillard pour jokkoo waa Tivaouane maa ngi lay nuyu di nuyu bi nga ànd ak yëpp man maay capitaine Foudé Ibrahima mangi ngi jógee Thiès je suis le commandant de compagnie euh compagnie 21 dafa nek compagnie bo xamanteni bu mag bi mo nek Thiès centre de secours bi Tivaouane bi bu ngay mexé bu Xombol ak bu tanaba yëpp foofu lañ jox donc euh, tay ci suba bi ñu adjudant chef bi wooyee euh, rendez vous compte que ni da ngeen di ñew pour defal ñu ben don d'une ambulance ñu rendre compte aussi suñu hiérarchie donc euh, tay dama fi jëmmal ñetti casquette je suis là en tant que commandant de compagnie waye ma ngi tamit di téwal ki nga xamanté ni moy commandé groupement bi groupement bi moy région de Thiès ak région de Diourbel waye aussi ma ngi téwal teewal nga xamanté ni moy le général de brigade qui commande toute la brigade nationale des sapeurs pompiers moy le général Morsek euh di la dalal ci sa kër di la wax euh ahlan wa sahlan di kontaan ci seen teewaay parce que li ngeen ñew def ci tay je di ko ni acte bu noble la parce que xam ngeen ne certes sapeur mi ngi ci ci waawoon am nañ ay moyen ñu ngi sant yàlla waaye nag ay moyen du doy li may wax ma ne chaque fois que nit ñi di yokku infrastructure yi di yokku il va falloir que moyen yi di yokku wax dëgg yàlla le commandement à travers l' état 2019 bi moyen yi mag yi ngeen gis fii yëpp ci don ci 2019 lañ ko amoon et fin année bi ñu nekk aussi ñu ngi xaar yeneen moyens waaye n'empêche yéen xam ngeen ne bokk na ci seen ci seen yitte ak seen i wareef ngeen dimbale ñi nga xamante ni ils sont là rien que pour la population de Tivaouane donc man maa ngi leen di gërëm di leen sant ci sama tur waaye ci turu brigade national des sapeurs pompiers du Sénégal bi yëpp ma terminer nag sans pour autant ma soññ ñi nga xamante ni nii tey ñoom ñooy recevoir li nga xam ne mooy oto bi ñu def ci seen kéemtalaay kàttan toppatoo ko pour le grand bonheur de la population de Tivaouane parce que tay buñu amé ay moyens dinañ mën a intervenir ni mu gëna a bien vrai que amoon nañ ay ambulance mais bi bu ci yoko tay fuñu ñu dem ben intervention benen am benen am dañ mëna a décaler yeneen ambulance donc ñi ngi leen di gërëm di leen ñaanal Yalla waaye aussi di leen wax ni bu leen yam fii rek su ngeen amaatee yeneen ambulance bu ngeen xalaatee pompiers yi ñu jël donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu kàddu gi rafetee ngeen xam ne ci euh, yàlla moo ñu may kàttan googu bu dëngee ngeen xam ne li ñu yéene woon wala suñuy seet li ñu yónni woon ëpp na li ñu leen di gërëm di leen sant si dëng bi merci beaucoup. en tout cas salaamaaleykum mon capitaine maa ngi nuyu si commandant de compagnie bi di nuyu général bi ak l' ensemble des sapeurs pompiers du Sénégal. damay am kontaan bu ma duggee sapeur pompier ndax dama yàgg jël au niveau de l'assemblée les problèmes des sapeurs pompiers depuis général Camara nekk dem na ma ba defal ma distinction jox ma ko mi ngi sama kër donc man sapeur pompier lu ma ko sa intéressé la ndax defe naa ni ci inondation yu njëkk yi moto pompe yi sapeur pompier amoon di ko dugal géej waaye maa leen ko may mhm. ñetti ambulance yi nekk actuellement sapeur pompier maa leen ko may camion ñaari camion tracteur yi ak benn camion bu mag bi bu xonq ba fa nekk maa leen ko may kon man yàgg naa may sapeur pompier donc dafa am loo xam ni boo koy def da ngay xam li ngay def lan la ak pour ñan la dafa nekk un besoin pour que ñu dimbale sapeur pompier parce que sapeur pompier mooy dimbale waat hmm. risque yi ngeen di jël ak li ngeen di def dafa jar ñu assister leen topp ci yéen ba defal leen loo xamee ni ëllëg boo leen soxlaa moyen di ngeen ko am gis nga bi Sandaga lakkee ci laa mer ndax Sandaga dafa lakk ñuy tàccu ñi ñëwoon di ñu wallu si di sabade suñuy sapeurs-pompiers c'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui loolu laa mën def supporter donc lépp loo xam ne am nañ ko war ko mën a defar sapeur pompier dañ ciy daw def ko loolu moo tax Ablaye Ndiaye Ngaloum mu baax ba mu indee affaire euh, ambulance ñu ne benn bi dañ ko yóbbu ci hôpital bi mais benn bi dañ ko jox sapeur pompier ndax lu nekk ci tali bi sapeur pompier mooy jiitu boo amee problème balaa ngaa woo kenn sapeur pompier tàmm nañ ko ba fi ñu toll nii dama lay wax gis ñi fi nekk ñëpp ku ci sibru sax sapeur pompier nga ñëw. maa la ko wax. gars yi yëpp amul kenn ku ko a kon nag ñun lu ñu fi def rek dañ ko teg si yoon xam ni lii ngeen defal da ngeen ko mérité moo tax ñu jël ko teg ko seen loxo parce que xam nañ ni buñ leen ko joxee di ngeen ci def li nga xamee ni moom moo ci war te doo leen ko caaxaane te doo ko négligé loolu si ñu ciy sant yàlla bu baax. commandant xam na ni saa yu ma xëyee suba maa ngi mooy wax jamono inondation lañ toll du ñu nelaw ba 5 heures du matin c'est la première fois Tivaouane.

dafay dimbali institution wu état boo xamee ni moyens dafa soxee mu dimbali institution état xam nga bo dimbé bo dimbalee dispensaire dimbale mosquée dimbale sapeur pompier ça veut dire que sa xel mi ngi ci toi tu es un patriote kon jàppale ni lay patriote la comme ñi nga xamé ni bëgg dëkk bi noonu la bëggee dëkk bi ni koy sant diko ko di limu def diko ko sant di sant ñi fi nekk ñëpp di sant aussi ñi ñu àndandoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm leen sant. dañoo nekk nag ci campagne électorale campagne bi fii kenn waru fa campagne électorale ci campagne lañu rek ñu ngi tàggoo di dem ñu ngi leen di remercier jërëjëf. mag nga idol mag. leen ñu joxe caabi ji. mag